Euh, perspective yi fii ak 2024 surtout que ñoom dañ jëloon euh, objectif 2024 à la limite amuñu moyen terme amuñu long terme pour ñoom c'est le court terme il faut 2024 loolu peut-être moo jur euh, militants yi nga xam ne tey dañoo désemparé ak responsable yu ndaw yi ak influence extérieure surtout ñi nga xam ne dañu nekk dans les réseaux sociaux di xamb chaque fois di appeler à l'insurrection taal taal leen taal leen këru diw yi bu ngeen gisee auto diw sangam taal leen ko dem leen ngeen taal këru tel responsable taal leen nangam taal leen bus yi couper leen autoroute def leen lii message yooyu bu fekkee ne am na ay nit ñoo xam ne dañu désemparé yi jot ko ak ñoo xam ne peut-être ñàkkul jox nañ leen ay jumtuwaay mun na jur li mu jur nii mooy bis buy dem ñoom jàpp nañ ni bis yëpp transport la nañ ko euh, veille morte la ñu wax nañ immobiliser le secteur des transports BRT euh, surveillé actuellement par la gendarmerie l'autoroute aussi pareil bus tata bus Dakar Dem Dikk yi ñu ci bëri gaa yi dañ leen gaare même si lakk nañ ci une centaine léegi ne nañ léegi transport pour ñu immobiliser ko certainement il faut ñu attaquer ñi nga xam ne ñooy bus euh, tata yi nga xam ne les bus aftu qui sont des biens privés moom laay wax booba pour ñoom est-ce que xàmmee nañ en réalité lan mooy bien privé ak luy bien public ci bic de transport dañ jàpp ne AFTU comme état moo joxe financement pour ñu jox ko coopérative yi ñu am euh, euh, transport bu mucc ayib ñoom dañ naan bu ñu attaqué bus yi bus du daw dañ ne bu benn oto daw su ngeen gisee oto buy daw sax taal leen ko parce que kooku ça veut dire que dafay doxi soxlaam euh, j'ai même vu des messages macabres loolu ñàkkul moo jur ñu gis bis bi euh, sànni ci cocktail molotov yaakaar ne ñoom dañuy créer rek incendie nit ñi daw génn malheureusement ñàkkul issue de secours yi doyul wala euh, bousculade am na. parce que yii xamuñu ko fi. c'est la première fois def nañ fi ay attentat ci ay oto am na bëri na bul fàtte ne def nañ fi attentat fii police jëppal taal fi oto guddi. est-ce que du acteur yooyu doon taal oto jëppal yooyu ñoo dugal ci boppu xale yi taal bis bi wala taal yeneen i ah bus dama ne je me pose des questions parce que xale yi c'est vrai que film am na internet bëri na ay euh, yoon pour nga xam naka lañuy ñuy xeexee xeex guérilla xeex terrorisme yu mel noonu mais il faut aussi am ay ak ay ay ay guide ay leader yu souvent aider la stratégie ak euh, poser les actions wane yoon wi ñuy jaar pour mën a déstabiliser peut-être éventuellement le régime à travers des actes de terrorisme parce que man noonu laa ko tuddee terrorisme mooy luy créer terreur ñëpp xam nañ ne le Sénégal est choqué aujourd'hui ci li nga xam ne foogoon foogoo ñoon ne mun na nekk tant que ñu ngi doon sànni ay côté la mën a def tant que ñu ngi taal ay a ce qui n'est pas normal tant que peut-être ñu ngi attaqué ici ou là gêner circulation je peux comprendre mais attenter à la vie d'autrui de manière aussi violente par des bombes artisanaux yi nga xam ne artisanal cocktail molotov bombe la bombe de guerre la dañ ko boole ci arme de guerre yi parce que man eh, booy dem di def formation pour les armes manipulation des armes dañ boole cocktail molotov ci yoo xam ne moo yor fusil kalachnikov wala nga yor arme boo xam ne 9 eh, millimètres la ñoo yem loolu dañ ko interdir duñ ko jox benn civil militaire yi ñooy faral di yor yooyu donc loolu dafa grave euh, te euh, yàlla na fi yem ndax lim nar a jur bu fekkee bien état la bien public les gens nañ comprendre mais bu commencé nekk bien euh, privé. mais est-ce que bien état sax war nañ comprendre. non dama ne je dis mën nañ comprendre mooy dama ne dañuy xeex il s'attaque au bien public loolu état am na moyen yu muy réagir peut-être des moyens peut-être contrôlés. mais bu ñu commencé di attaquer les biens privés di attenter à la vie des personnes privées li muy jur mooy fayu kenn ku ci nekk nga wut say jumtuwaay bopp pour ku la laal wala ku laal sa njaboot wala ku laal sa bien nga defante ko ak moom loolu la ñu tuddee loolu mu jur guerre civile loolu nag c'est dangereux bu ñu tollee foofu les gens doivent se ressaisir j'ai vu récemment bi may ñëw ci ci guddi à travers les réseaux sociaux benn communiqué bu jege ci Pastef encore que aujourd'hui ban euh, valeur le document boobu di am un parti qui def communiqué pour condamner acte bi ñaawlu ko jaale ñi nga xam ne ñoo ci gaañu je dis c'est médecin après la mort pourquoi. est-ce que nekk ñu di ci ci beneen démarche. oui mais je dis médecin après la mort li tax. bu fekkoon ne bi ñu fiy taal Auchan yi di lakk kër responsable yi di jël alalu jàmbur yi di attaquer au bien public amoon na communique de condamnation konoon tey bu ñu condamné damay jàpp ne ci dynamique gu euh, démarche et républicaine la ñu nekk mais circonstances yi nga xam ne euh, euh, Ousmane Sonko et en prison gouvernement bi jël na mesure d'interdiction de dissolution de du parti Pastef ak conséquences yi muy jur yu bëree bëri su ma toogee gis benn papier génn ñu signé ko bureau politique Pastef man ça me fait sourire pourquoi parce que je di dis est-ce que c'est pas trop tard